moo Sénégal jamono ji daanaka am na ay njeexital ci bépp secteur d'activité bu nekk ci biir réew mi jàng mi ak jàngale mi muccul benn yoon ci yooyu la njeexital mu am ci ay grève ay élèves ak i enseignants yu ñu teg loxo mu am ci itam ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan loolu moo tax COSYDEP di kuréel goo xam ne day yëngu ci wàllum njàng mi ak njàngale mi daal di génn ngir artu. xëy na deretu ndaw yu tàng tax na yëngu-yëngu yi gën a bari tax na yëngu-yëngu yi aussi gën a ba ñun ñëpp ñu gis lu mel noonu ku si def nga xam ne li ko yëkkati mooy école bu dal mooy sàmm njàng ak njàngale mi ñu àndandoo waxtaan xool ñun lan moo war a nekk suñu taxawaay plateforme bi nag mu ngi dajale ay syndicat enseignants yu bëri ñu àndandoo daal di xaatim benn résolution mu am ci ñaari recommandation bi ci njëkk ñu jagleel ko conseil constitutionnel. ñu gis ne kon ñun war nañoo taxaw ay taxawaay ñu ñaan ñi ñuy tuddee conseil constitutionnel nga xam ne ñoom la réew mi woolu ba dénk leen ñuy tënk ay xët yoo xam ne mooy ay joxañ yu ñëpp war a respecté ñooñu ñi ngi leen di ñaan li leen réew mi dënk bu ñu def leneen lu wuuteeg li réew mi di xaar ci ñoom mooy ñu doxal dëgg mooy ñu àtte dëgg bi ci topp ñu jagleel ko ki nga xam ne moom la ñu nar fal njiitu réew bu Sénégal waa ko si dépp ñu ngi ñaan ñu gën a dooleel système éducatif bu Sénégal. ñii laaj naan dañoo bëgg a jiite réew mi ñun jàngalekat yi ñu ngi leen di woo nañ ñu wax ñoom ana lan la ñu nar ci suñu école bi ana lan la ñu nar ci daara ji ana yan taxawaay moo nekk ci seeni programme yu ñu war a jëmmal ëllëg bu ñu tegee réew mi ci seen loxo. yooyu la noppi nañ ngir dugal seen loxo ci lépp loo xam ne dina indi jàmm ci réew mi ñu ngi rafetlu itam ubbite université Cheikh Anta Diop bu Dakar ngir mën a amal enseignement en présentiel.